Serigne Touba su maam maaram amul woon moom du am te maam Matar maamam mooy so sëñ maam maaram Mbàkke kon sëñ Moustapha Sy mbokkum senegal gépp la ni mu bokkee ci sëriñ Touba ci mbokk bokkee ko ci maam Sidi Hadji Malick ci mbokk noonee la bokkee ci mbooleem nit ñu baax ñëpp moom sëñ Moustapha Sy mi xam ni kii nga xam ni tey dañ koy fàttali di ko delloo njukkal ci bis bii ku am cër ci sëñ Touba la ndax ñoom ñaar kat danoo mel ni seen lépp dafa bokk nekk benn muy sëñ Mor Khady Sy ak sëñ Malick Bassine si waaye seen diggante ak Seexul Xadiim ñu sëñ Touba bàyyi woon xel lan muy sëñ Mor Khady ak sëñ Malick Bassine doy na sëkk cib cër ban njëkkee xemmeem jëmmi Serigne Touba Xaadimu Rasul ñëw ci moom sëñ tubaa da leen a nangul seenu njëbbal ba noppi ne leen li ngeen di sàkk boo leen toogee ci seen baay Maam Matar Penda di ngeen ko am kon feeg seen baay nga ne ci jamono jarul ngeen di wuti benn sëriñ ndax li ngeen di sàkk lépp daje na ci Maam Penda ñu nekk fa ba am ngërëmal seen waajur seen waajur génn àddina ñi doog a dem moom sëñ Mor yi ak sëñ Malick Bassine fekk seexul xaddiim waaye jamono jiñ dikkee ci Serigne Touba mbooleem lu doom mi soxna war a xam fekk na ñu peeg ko ci xam-xam ci alquran ci ragal yàlla ci wilaaya ci dundee seenum ñaq ci njub ak bëgg ki xam ni mooy yonent bi salaa salaam ak borom bi subhaanahu wa taala waaye biñ egsee ci Serigne Touba lawoon seen cër ci sëñ Touba mooy sëñ Touba fu sëñ Mor Xarit si ak sëñ Malick Ba si musa ne lam leen di féetale mooy njàngum alxuraan gi ak yare gi nga xam ni loolu cër bu rëy la te cër boobu moo nekk cërub sëñ tubaa waaye ñoom ñaar fu mu a nekk rek fekk fa sëñ tubaa daaray alxuraan nga muy daaray tarbiya ja sëñ tubaa seen loxo la koy teg nga xam ni ci ñaari jëmm yooyu di sëñ Mor Khady si ak sëñ Malick Bassine si Serigne Touba wax na ni xanaa xamoo ni was waskur abadana gi ngeen di dégg ci alxuraan nga xam ni yàlla day fàttaliku yeneen tamit yi nga xam ni ñoo jiitu woon Seyduna Muhammad salaa salaam nga xam ni waskur ibadana Ibrahim waskur ibadana Ismail nga xam ni mbooleem yeneen yi jiitu woon kenn ku ne yàlla danaan fàttaliku leen sama jaam ñooñu waaye Serigne Touba nee na sëñ Mor Khady si ak sëñ Malick Bassine si buñ fi jiitu woon alquran ni alquran tuddee yonent yooyu noonu lay tuddee seen tur Serigne na sëñ Mor Khady ak sëñ Malick Bassine bu mu jiite woon alquran ni ko yonent yooyu jiitoo woon noonu la alquran di tuddee wasku fi kitaabi Malick Bassin si boo Mor Khady si kon nga xam ne loolee cër bu rëy la nga xam ne Serigne Touba ko wax ni ñoom mun fi jiitu woon alquran alquran seen i tur du ko indi. nga xam ne kon ñoom ay boroomi cër lan moom sëñ Mor Khady ak sëñ Malick Bassin waaye Serigne Malick Bassin si nag dafa am jagle boo xam ni keroog bi nga xamante ni wàcc na liggéey moom Serigne Malick Bassin. keroog ba mu wàccee liggéey nee nañu Cheikh Mouhamadal Fadal Mbacke ibnu Serigne Touba sëñ Fallou Mbacke dani jaagug Malick Bassine si bët bu ca tegee sa yàpp yaram araam na sawara sëñ Fallou moom Serigne Touba moo ni jaagub sëñ Malick Bassine si bët bu ca tegee sa yàpp yaram araam na sawara loolee la Cheikh Mouhamadal Fadal Mbacke moom Serigne Touba wax nga xam ni kon sëñ Malick Bassine si ca gaay yàlla yàlla bokk ndax ku doy ni doomi Serigne Touba di sëñ Fallou comme ni ku sëpp tege ci bëtam rek nga dem aljana kon kooku borom cër la te mooy Serigne Malick Bassine Sy Serigne Malick Bassine nag nga xam ni bokk nañ moo sëñ Mor Khady ci mag ñi nga xam ni fekk nañ Serigne Touba gànnaar te Serigne Touba ña ko fekk gànnaar nee na inna allazina ila sarsaara qad qasadu ziyaarati faaraqu daarayn aw saara fekk fu ne sëñ Touba cër la waaye ña ko fekk nag gànnaar ñoom kenn ëpp leen cër ndax daraja jëleen sëñ Tuubaa takkal mooy ña nga xare woon ca toolub lislaam nga xam ne bu fa jóge woon di mooy yàlla ba at mi tukki kenn du leen bindal bàkkaar ñooñee la sëñ Tuubaa wax ni lazina ila sarsaara xadd xasadu ziarati faaraqu daarin aw saara nga xam ne daraja jooju ña xare woon badar ñoo ko amoon sëñ Tuubaa nee na yàlla moo ma sellal ci lépp loo xam ne ak neen la ak caaxaan mooy sëñ Tuubaa gane na jamono woon wool ba ba dem Tuubaa mës ta jëf lu ko astaxfirullah di fekk sëñ Tuubaa gane na jamono Mbàkke Bawol ba dem Touba sëñ Touba musta jëf lu ko astaxfirullah di fekk kon sëñ Ibra Diop ba la doon wax ne la ku musta def erreur tubaab dañuy l'erreur est humaine nit ku ne dana juum sëñ Touba musta def erreur sëñ Touba moom musta def erreur te tubaab nee na l'erreur est humaine sëñ Touba nag musta juum xamu ndax sëñ Touba musta juum lim jox yàlla la ko kenn musta jox xam nga sëñ Touba lan la jox yàlla la ko kenn musta jox mooy intention am yéeneem loxoo wa xilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukuli loxoo dara niyaati nee na sama yéene sax yàlla laa ko jox waxul li mu jëf de li mu nar a jëf sax la jox yàlla li mu nar a jëf nag ginnaaw jox na ko yàlla kon jëf de waxatul ko kon xam-xam ba waxatul ko ruuga waxatul ko jëmmi boppam waxunu ko loxoo dara niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukulin léppam la jox yàlla moom Serigne Touba léppam la ko jox dese lu ko dara moom Ahmadou Khadim nga xam ne digganteem ma yàlla mu see jëf lu ko astaghfirullah di fekk xanaa xamoo ne sëñ Tuubaa fi mu àgg ci yàlla ci tawhiid tawhiidu sëñ Tuubaa la kenn amul moo tax léeg-léeg nga gis koo xam ne day woote ibaadu naan daa am tawhiid amul tawhiid ndax tawhiid ba ca njëkk mooy doo naw sax jaamu yàlla koo gis mu naan li may jaamu yàlla kenn jaamu ko yàlla wala ni ma mel kenn melu ko yaa gën a yées ñëpp boo demee ca ca téereb sëñ Tuubaa ba tudd Jawharun Nafis sëñ Tuba nee na fa wa kullu man yanzuru fawqahu lkalbu falkalbu xayru minhu duna irtiyaabi sëñ Tuba nee na waxuma la nit ku yàlla bind waaye du ab xaj sax boo ko xoolee bëggoo xool ba du maa la gën sax xaj baa la gën te yàlla wa kullu man yanzuru fawqahu lkalbu xanaa xamoon Ibra képp ku doon tagg yonent bi am na lu tax nga di ko tagg sëñ Tuubaa rek a tagg yonent bi tax intérêt la lu ko dama ni mbooleem ku doon tagg yonent bi imtadaxtuka yaa mawlaaya mubtaqiyan min karidah baxda ma taxu min da koy dàq at mu bees wayu bees ala man alayya walaftu sadeex loxoo kulla amin hadaya ma deex ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa bëgg ko xeet bëgg ko xam ni lu mu ko wax xeet ko lu mu ko tagg mu xeet ko ngir lan am cofeel ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa nee na bi wax nga lu rasulillahi wax mulkul ali baaqil qadim jaalani asna qadim liman lahu fadlu yadum wasaani an qadami yàlla sunu borom moo ne mboolem kuy liggéeyal rasulillahi sëñ tubaay sa patron toolu bu yeneen bi ku ci xëy ku ne koo mën a doon sëñ tubaay sa jëwriñ mulkul ali baaqil qadim jaalani asna qadim waaye sëñ tubaa moomu nag laa bëgg a waxtaane tuuti ba ñëpp xam daa teg yàlla fu ko kenn tegut teg rasulilaay fu ko kenn yàlla jël sëñ tubaa teg ko fu mu tegut kenn sëñ tubaa daa jaxasoo yàlla ba may gum ni yàlla may nag ko day jël turu yàlla méngale ko may gi ko yàlla may sëñ tubaa saa bu musaa dox ni yàlla may na ma dara turu yàlla lay jël méngale ko may gi kon yàlla mi ko jox la moo tax mu ci sant yàlla ndax lu ko lu mu am rek yàlla moo ko jox moom sëñ tubaa moo tax moo tax mu ni jawastu naas wa ma fi aydi naas illa rabbi naas falamma wasaltu ila rabbi naas ahtaani naf a naasi wa kafaani dura naasi jégg naa nit naa li ne ci doxee nit ñi àgg naa ci yàlla mi sàkk nit ñi yàlla jox ma njariñal nit ñi ba noppi dàqal ma loru nit ñi sëñ Tuubaa na njariñ kasa laa te njariñ li ma yor ànd ak benn lor nafaani wa biya yan fahul waraa seexul xadim nee na yàlla miy jariñee ci man mii lay jariñee jaam ñi sëñ Tuubaa na ci man sëñ Touba la yàlla jariñee mboolem jaam ñëpp man Ahmadou Khadim mboolem ku yàlla su di jariñ sëñ Touba nee na njariñ li sama loxo loxo yàlla teg man la jaarale sa njariñ li ba ak sa loxo lam yabqa lam yabqa fil kawni si waa man yabdu barakati wa xadd ataani matlabu sëñ Touba nee na amul kenn kuy dund ci jamono te wa sama barke man sëñ lu waaye am rek ci barke sëñ Touba nga ko amee lu fi waay am ci barke Serigne Touba nga ko amee lam fi l kawni siwa man yatlubu barakati waxad ataani matlabu sëñ tubaa ko wax sëñ tubaa nee na lu fi waay am ci sa barke nga ko amee kenn laa wax mayu fi sa bopp lu fi waay am sëñ tubaa la ko jox ma ne yoon woo xam ne bi nga ci bokke kenn yëgul ni bokk nga ci ci bàyyee kenn yëgul ni bàyyi nga ci kon sëñ tubaa mooy affaire bi ma ne yoon woo xam ne ba nga ca bokkee kenn yëgul ni bokk nga xanaa xamoo ni murit bu xëy ni xàcc naa gars yi dañ bokkoon na ci nga ne yoon wi ku ci bokk ba jàgg ni bokkutuma gars yi dañ naan est-ce que mustatee bokk sëñ tubaa rek a indispensable loolu nan ko nangu sëñ tubaa mooy ki indispensable sëñ tubaa mooy li kenn mënta ñàkk am na wax joo xam ne nag ku ko wax sëñ baa ba muy bu sëñ baa ku ko yëkkati yëkkati na seex sépp sëñ tubaa moom boo ko joxee daraja lu tax sëñ tubaa am na daraja waaye koo mën a jox daraja te daraja ja tàmbalewul sëñ tubaa kooku amul daraja daraja mi ngi tàmbale ci sëñ tubaa moo tax bu tuddee sëñ tubaa rek daraja ja ca la bokk moo tax lu waaye jox Serigne Touba ci daraja rek Serigne Touba yelloo na ko xalafa zamaanu la yaxtiyanna bi mislihi faanisat yaminuka yaa zamaanu fa kafiri jamono waat nga ni ku mel ni Serigne Touba dina fi del si waat seena seex sat bu nee na jamono dootu indi ku mel ni Serigne Touba seena seex sat bu nee na ku mel ni Serigne Touba jamono dootu ko indi seena seex sat boo ko wax xalafa zamaanu la yaxtiyanna bi mislihi faanisat yaminuka yaa zamaanu fa kafiri Cheikh Abdoulaye Al Halawi ca gànnaar la dëkk nee na walaw xalfa arda chiini wal inde wa turki isa kunta fi barin atak rikaabuhum wa in kunta fi bari atak alal fulki ma ni ca Chine duñ fa gis ku mel ni sëñ Touba fa inde duñ fa gis ku mel ni sëñ Touba waaye fa turkeet kenn du fa gis ku mel ni sëñ Touba walaw xalfa arda chiini wal inde wa turki dëkk yooyu boo fa doon tukki di xool ku mel ni sëñ Touba doo ko fa gis ndax sëñ Malick Bassine si moom lu waay gàtt gàtt gàtt dégg dégg dégg li mu def ci ay joloore adduna bépp xam nañ ko ca dégg nañ ko tamit samay mbokkum ñëpp nag di nit koo xamante ni si ko yàlla baaxal la moom suñu safaa yi mbokk gi mu bokkit ñi mu ko bokkal ñëpp rafetal na seen diggante ak moom ci àdduna loolu rek ma fi des képp koo dégg rek mu naan maa ngi bëgg bàyyi naa nit ñi bàyyi ba nga xam ne àddunaam jeex na nit ñi kenn mun leen a baax da ngay xam ni ngay ànd ñoom rek ca ànd ak ñoom ca xam ni ngay ànd ñoom waaye képp koo dégg muy wax naan ak di wax ci téléphone naan banaa nit ñi ak toog ci jataay naan banaa nit ñi addunaam jeex na tàkk man maa la wax man la leen sëg nit ñi kenn du leen baax faw da ànd ak ñoom ba adduna rek kon suñ suwaa fii mu nekk foofu rek la bu wootee faw nit ñi ñëwal ko si maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu bu baax sëriñ Abdou Khadir si mi nga xam ne nii mën na ni mooy kilifa jataay bi muy ko yàlla baaxal moom alaaji Modou Mbacke si maa ngi koy nuyu ca di ko def euh, di ko jox nuyoo bi nga xamante ni di nuyoo bu kawe di ko jox nuyoo waa kër njaboot gi yëpp di ko siyaare bu baax a baax di nuyu jàngkati xasaay yi fi teew yëpp fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp wuy si nañu ci ni ñu wuysee mooy jëmm ji tedd ji rek di sañu sofaa ci lii nga xamante ne at mu ne da koy woote waaye muy ku am kóllëre nag ko ni suñu diggante moom kóllëre rek ko mu mel ni monsieur le sëriñ seex Cheikh dafa toog nii sëriñ bi mi ngi may dee léegi di jotal ay cant ak i ngërëm di wax ni bis bi kenn mënu la ci bis bi sa doole ak say xalaat ak sa alal sa lépp ñàkk nga ko ci ngir bi sëriñ Tuubaa bi rek waaye ngir jëmmam jii kii nag day ku neexu jàpp nit la koo xamante ni du xëccoo dara nit la koo xamante ni li mu am da koo xam ndono li mu yorit mu xam ko waaye ginnaaw ba mu wattoo li mu war a watt lépp jàng alxuraan ndax moom kër maamam ku fa nekk rek lu mu tuut tuut rek mokkal na kaamil alxuraan foofu moom bo bo bo bo bo demoon ba sa am aajo képp boo duggee biir kër sëñ Balick Basine boo cafee gi suuf si sax wax ci li nga bëgg boo demee sa aajo faju ndax kër gi dafa saf sap ak alxuraanul karim moom mi lee musatoo ci kër gi xam boppam lool wax na ma ni nañu la sant nañu la gërëm ndax bis bi kat ni mu ko bëggee ak fi mu teg bis bi ak ni mu jàppee bis bi ak fi ak bis bi ni mu mel ci moom nun xam nañ ko bu baax a baax nee na daal yow meer bu kenn merewul nga kon nag yàlla yàlla defal la jàmm dafa lay xéewal ci barke sëñ Touba sëñ Moustapha nag li ma wax léegi rek yéen a bokk gox bi mu nekk fii di fi liggéeyal sunu borom nanga ko jàpp loo ko gënoon a jàpp na ko gën a dolli ndax ay way juróom kat gërëm nañ ko ay bokk mit ànd naa ak ñoom ci ñëpp gërëm nañ ko. Cheikhul di ñaanal Cheikh Mountakha yàlla fi jàgg te ñoo ngi nuyu sëñ Moustapha di ko ziyaar di ko ndokkale ci bis bi waaye tamit di ko di ko ndokkale famille bi yëpp bu ñu waxee septième édition ñu jagleel ko delloo njukkal sëñ Moor Xadi si ak sëñ malik Basin si yaakaar naa lañ fi wax sànq mat na sëkk ñu jata ñu jara delloo njukkul lañ macha allah kon boog tey jii nii bu ñu invité ci septième édition bi nii honneur la ci ñun ñu ñëw teewee ko dañuy rappeler ni gox bi muy Pikine Ouest képp ku fi doon administré nga am bés muy bànneex muy tiis sunu rôle sunu responsabilité moo ñu ñëw bokk ko ak yow ah pour lu faire raison koo xamante ni kilifa la ci gox bi kon bokk sëñ bi ñu ngi lay ziar di la ndokkule di ñaan yàlla lépp liñ fi ñaan muy alxuraanu karim biñ fi jàng ci suba ak lépp luñ fi jàng ci guddi gi yàlla na ko yàlla nangu di ñaan tamit édition yi ñëw gën a kawe édition yu weesu ndaxte mbirum Cheikhul xadim amul tànku ginnaaw tànku kanam la am kon boog ñu ngi koy ñaan bu baax a baax waaye tamit di gërëm képp ki nga xamante ni tey jóge nga fi sa kër ñëw fii teewe bis bi ndaxte buñ ko defee defaluñ ko kenn ku dul man kon boog ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye ci nuyoo yi ñu ngi nuyu tamit toute la représentation de l'équipe municipale muy au niveau de la commune waaye aussi au niveau de la ville ndaxte conseiller ñu ngi fi représenter li nga xamante ni mooy maire de la ville de Pikine mais aussi maire de la commune de Pikine maa ngi ànd ak Euh, sëñ euh, sëñ Abbas Ndoy ak soxna Sali Sarr ñu ñëw teewe bis bi kon bokk dama leen di gërëm euh, di santaat ñépp tey wax ni bu ñu sañoon yaakaar naa kenn duñu jiitu fii waaye tamit bu ñu sañoon kenn duñu mujjee fii waaye dafa am yeneen programme ñu war a dem nii moo waral sax ñu jël kàddu waaye bu dul loolu dinañ toog fii wax fa dëgg yàlla ba cant gi jeex kon boog ñi jéggalu tey sàkku si yéen su ma daaneelee sama kàddu ñu yewwi ma ma mën a dem ci yeneen jotaay yi sëñ bi ñu ngi lay ziar di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi nee na xolam sedd na guy moom moo la fi teewoon rek ngir sa kàddu yu tedd yi nga yëkkati ca bis bii di bisu ngëneel mu bëggoon nga wax bi ba àdduna bépp dégg la nee na xolam sa dina guy mu ngi ñaan ci barke sëñ Touba yàlla yàlla defal la jàmm yàlla yàlla dolli la xéewal ci barke Seexul Xaddim nee na kontaan na bu baax a baax bu yàgg nga nee nag nga bëggoon a yeeweeku waaye mun la toogal tuuti rek ba yëkkati kàddu soo yëkkee kàddu ba ba noppi nga mën a yeeweeku waaye bu yàgg la la bëggoon a yewi waaye lii rek la bëggoon nga yëkkati ba nit ñi dégg la ndax bis bi kun fi dégg dootoo dootoo fay ma mbaat du tukki ndax xam nañ bu baax a baax mag ñi mi defal bis bi kon yàlla na yàlla defal la jàmm monsieur le maire sëriñ bi bég na loolu kontaan na mu mel ni sëñ bi ni mu ko waxee rek xam ngeen ni bis bi moom daawul amee fii fii ci fi mu daan defee bis bi ci boori école bi nga xam école 4 école 5 fa la daan defee bis bi xam ni fa tabaarakallaahu moom kon nag ñu dugal sëriñ Abdou Lahad Mbaye bu ko defee mu ñëw indil ñu ñëw ci xasaayid yi wa jaara biya bi xadri dama zaatil karimi min nanan muazzama yasuuxu li ma sey bi lantia wala adan kama lu seyrin taa saaqal yalbaaqi xiraabilan shiraam kun fa yakunu lii يوجه المرام تكريم من ليس له تيام لي به تبتدر اللعاء بادر لي جود الكريم والكرم باق ودود لا أفارق الكرم سأل إله أنني مكرم خل ويب وبيل وكرم رديء رضيت عنه ووعن ميلادي وكان لي بالأمن ذي أقرادي وجعل الجميل نعم بالجميع ولسوى ما اختاره لي لا أمير فالذي لم يرض لي وستر سري وهيبي ومبيعاتي استرى براد من بارزني براد من يبارك منتقما بار زمن براز من بارزني براز من يبارز منتقما بار زمن إذا طلبت من إلهي طلبا وإن سربت بالإله سلبا لي جاد بالتوحيد ربي العاد مسجاد لي بقل والله أعلم هم دادي والخلام في العداء وابدا لست الاقي منادا ذل الذي يبارز الله الجليل ذل ذليل فوق كل ذليل يا من يرى خير الاله الربا وخير افضل الورى محبا نزغ من شدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قد وجعته عند الظلمات مدى كفاني العدا والصدمات مد رسول الله صلى الله عليه بالالي ومن والاهم سيدي مور خالد وسيدي مالي باسنس honorable député maa ngi koy commencé maa ngi koy commencé si yow sëñ wax na ne sawaabul hadiyati tajzibul murida ila saadati wa ulwil maqaamaati wa kasratul maali wa tuulil umri wa mahabbatu naasi ilayhi wa sabqul aqraani ila aaxiri Cheikh Abdourahman at Tandaki ci benn naar ca day wax ne bu ñuy tudd sëñ Tuubaa nee na jar na di sor di jug di pakkar ñu ko wa kun mutriban bi ruqsin wa duxni saarixa la daa zikri ismi wa képp ko ñëw fekk fi jox ko addiyee Serigne Touba yàlla nga dajale ngërëm a Serigne Touba Xaadimu Rasuul kii li muy wax neex na lool neex na lool neex na lool ci xol jërëjëf Serigne Abdoulaye jërëjëf ma ngi jégalu rek sax wàcce foofu suñu ko sëñ Lamin waxee léegi rek njàng mi neex na lool te pësteefu na yow li nga am lépp xasaayte la ko defal jàngoo tamit boole kook leneen xasaayit kese ngay jàng yow xasaayit nitu xasaayiti nga bis bi ngay wooteel sëñ Touba ni nga def xasaayit yi noonu la sëriñ bi def sëriñ bi moom boo ko beree rek mu ber la bis bi ngay tant tëngéej boo wootee xam ni xasaayit kese moo nekk yow moo mel ni ñu nu tuddee bis bi Cheikh Abdou moo jiite bi noonu ànd ak sëriñ Saliou Gueye Badar mi ñëpp xam moom Cheikhul Khadim ki nga xamante ni bu waxee rek ñëpp bég bu waxee ñëpp kontaan ci Serigne Touba Serigne Gueye Badar jaare bax Gueye bismillah tafaddal sëñ Fallou Gueye ak soxna Maasu na mooy seen mag ak Serigne Moustapha Gueye ak Serigne Ndiaye ñoom ñëpp ñëw nañ ndax ñoom ñoo bis bi ñoom la sëriñ bi tudde bis bi alaaji sëriñ gay badar bisimilah toogal nii toog leen ñu may leen ñu ñoom lañ tudde bis bi ñoo ñëw noonu njabootu alaaji sëriñ gay badar bi mu ko yoree xam na bu baax a baax lan la représenté li mu li mu li mu li mu représenté ci Sénégal àdduna bépp xam na ñuy jël kàddu nag ci ndigalul honorable Mamadou Diop jiite délégation de directeur des domaines maire de Djeddah Thiaroye Kaw ki jiite délégation bi mooy honorable Mamadou Diop nekk première adjoint au maire dans la commune de Djeddah Thiaroye Kaw nekk conseil municipal à la ville de Pikine ñu ànd ci délégation bi ak monsieur Abdourahmane Fall nekk conseil à la ville de Pikine ak soxna Naago Jaxate nekk grande responsable dans la commune de Pikine Ouest le conseil municipal dans la commune de Pikine Ouest cheikh bi ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax si ndigalul honorable Mamadou Diop le directeur des domaines moom moo fi waroon na bëggoon na ñëw teewal boppam waaye ku ne xam na ni yittey jamono ji ak xat-xatu jamono ji moo ko xaw a jàpp ba dernière minute ci la ni am na gàllankoor boo xamante man maa bëggoon a ñëw teewal suma bopp fii waaye olof dafay wax ni ndaw ku nekk jëm ki ko yónni moom lay yor te foog naa ni honorable Mamadou Diop matal na ko sëkk directeur des domaines di wax ni mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ak wérle ba bis bii ngay woote at bu jot yàlla la fi sunu borom bàyyi ba nga yàgg di ko woote te kenn bañ cee manqué ñëpp du ko fekk ci bi jël nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Xaadimal Moustapha yow sa jaloore ci réew mi ñëpp ci la. antal muxaddimu wal xalifatu fil wara baxdal xadimi nde yow yow yaa defoon kadaa cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Xaadimal Moustapha yow sa jaloore ci réew mi ñëpp ñëpp ci la gis naa ni kuy woote xalifatu yaa ko gën ndax sa baay ba moo gën seeni sëriñ gën seeni baay dend la la xulafaa yi xaw naa araam yaaram du gam-gam leeg sagan yëmu baay leer cosaan nga xewoon fa mbàkke fa yoo ko yow labbayka cam su la wuy siwul شيخا ثم خربا مستواه ثم خربا مستواه ثم خربا مستواه ثم خربا مستواه ثم خربا مستواه ثم خربا مستواه ثم خربا summa xarban mustawa summa xarban mustawa summa ku sopp cheikh mouhamadul mustawa def nii ñu màggal cheikh mouhamadul mustawa nawata sarxan summa xarban mustawa samsul wara yaa faw xaweer ab leeraay xut boo ngi nii gaa yi wuy siwul dañ laa xamul gaa yi wuy siwul dañ laa xamul ji jaa ngi nii am xaaya na ngi mooy wey ba xaay bahrul haqiqati wa sariirati wa nada mawjun yi fóorun lil waraa yaay jenn waay yaay mbambulaan bëhrul na daa sangu leen yaay ndox mu teey ku la tàbbi ku la màndi taxaw lu naa yàlla na sëriñ tuubaana defar sunuy biir baatinan aw baana wax balaaw biin li muusa ànd ak sëriñ tuubaa te tàggoog muusa sëriñ tuubaa ذكر محمد ولا وزاب ما قبل زنب الذين بهذا وإن اليوم حنرمت من كل ما جنيت قبلت إزداد جنور جنور في الخير وستر الحوام ولسيدان والنفس والخلق عديل جاري فغل نائما من أتاني سري مالك باسرسي سري مان خدزي تكلنا لمداي باتن سرنجيني سيدما